danoo dégg président de la république mu wax ci mbiri dund gi maanaam dund gi dañ doon xaar mu wàññeeku wàññeekuwul xam ne li yéeme ci réew mi mooy ñun dafa mel ne amatuñ ay njiit amatuñ ay kilifa wala boog mun amee ay njiit am nañu amuñu kilifa xam ne doon njiit yomb na ñu fal la nga doon président mais doon kilifa moo jafe maanaam kilifa lenn rek lañ koy nawe mooy mu am baat am kàddu te ñaar yooyu daf mel ne président Macky Sall da kaa ñàkk moom ak nguuram maanaam amatuñu baat ci réew mi amatuñu kàddu ci réew mi kàddu googu nag moo ko njëkk a xañ boppam mbiri troisième mandat dinaa ci dikkaat ndaxte moo wax waxeet bari na lu mu diggoon askan wi defu ko waaye baat boobu sax amatu ko ndaxte digal sax ay nitam na leen def leen ñu def sax président Macky Sall mënatu ko kon tey jii dafa jiite sénégalais yi rek ne est-ce que mat na leen kilifa ñu ngi dégg fan yee weesu ku mel ne Mame Mbaye Niang génnee ab audio. ab audio bu génnee ñu ne moo ko moom waa loolu lañ mu ngi naan président Macky sàll moom ak ay nitam wax ni daal xajootuñu bari na ci ñoo xam ne déglootuñ ko audio bi di génnee loolu ñu ne Mame Mbaye Niang wóoruñu ñu moom la dañ ko monté waa mais ojo bi moom lañ ko bàyyele te loolu li koy firndeel mooy bari na ay décision yoo xam ne dañ koy jël ci réew mi yooyu la décision bu ko njiitu réew mi jëlee ba pare jëfe ko jafe démb rek ñu ngi ciy dégg Idrissa Seck mu naan ci ab décret boo xam ne président da ko signé woon mais ba jusqu'à présent administration beeg ñoomin seen ci conseil économique social environnemental mais loolu lépp Macky ak Idi moom seen affaire la ñoom ñoom ñoom la rek ñoom seen affaire la quoi mais bu dee li ñor askan wi jëm ci mbiru dund gi luyaas bi gars yi da ngay dégg ñu ci wax mais luyaas bi du mën a wàññeeku parce que ñi moom kër yi ñuy luwe ñoom ñoo war a wàññi luyaas bi xanaa man moomuma kër keneen keneen moomuñu kër mais këru borom barke yi borom barke yi wàññi war a wàññi liyaas ñoo ko wóor bari na ci kër yoo xam ne ñi nekk ci nguur gi ñoo ko moom kon wàññi ko day jafe kon sëlëm nit ñi la rek yóbbuñu ci yoonu deux mille vingt quatre pour gëmloo na ñi ñi ngi wàññi beneen bi ci topp da ngay dem ci marché bi suukar cent cinquante lan doon wax ci liibar bi tey jii man de Kër Masaar gi ma dëkk genn waa liibar suukar cent soixante quinze franc la fay jar. cent soixante quinze francs te cent cinquante la ñu ne kilo bi six tey jii kilo bi Kër Massar sept cent lay jar kon wàññi amul boo ñëwee ba ci ndawal li la même chose njëg li gën naa yokk dellu na fa mu nekkoon ba ci transport bi ñi mujj wax ginnaaw ab euh, dogal bi fi jëloon ni yokk nañ carburant bi waa Tata yi aftu xëy ne danuy yokk ministre bi di Mansour fay génne kayit ne buñ ko yokkoo mu rëq seen digg dem ban menacé nañu mun na nangu seen i licence mais yokk boobu am na ligne 57 bi mu ko déggee dama kaa gëstu ligne set bi jëm Tëngéej yokk na ligne 54 bi jëm Kër Masaar bu ma juumul yokk na ligne 76 yokk na te ligne 76 li ci am mooy li gën a bon mooy ticket yi ñuy dagg démb laa ko gëstu te am naa ci lu ma leer ticket yi ñuy dagg léegi machine yi ñuy daggee ticket yi. machine yooyu ticket cent franc amatu ci benn booy receveur laa ko laaj booy bii na ma ñiy defar machine yi programme tun ticket cent franc maanaam boo jigee liberté 6 jël 76 jëm Padois boo deful nank cent cinquante franc ngay paas te du benn décret wala arrêté bu génnee nan yokk transport ci Sénégal mais transport bi yokk nañ ko lool nag boo gisee ñu koy wax mooy ñun sunu njiit yi duñ ay kilifa te matuñu njiit. parce que lii di soxlaay askan wi ju cooñaay sénégalais yi dafa ñorul nguuru Macky Sall mais aussi dafa ñorul ay ministre am ñorul administration ñorul tamit gëm naa ni takk der yi ci tali bi parce que ni ñuy def bay jàpp ay chauffeur naan leen yem leen fii yem leen fee mais buñ ko doon contrôler oto yi xool nax prix yi ñu ngi koy appliquer am déet mun na am duñ yegg fii mais xamul lu leen ñor xëy nekk ci réseau sociaux yi maanaam nguur la goo xam ne dañoo am jot duñu ay liggéeykat li ma Ludovic Rosner waxoon mu ne nguurug président Macky Sall ñaar moo mën a am mooy soit duñu ay liggéeykat wala bëgguñu liggéey maanaam mënuñu liggéey wala bëgguñu liggéey ñaar yooyu rek moo am parce que boo xoolee ni Sénégal di doxee da ngay xam ne ay cuune dëgg ak ay yambar fanaanoo ñoo ko jiitee te loolu nag li koy dëggal muy dundunu askan li soxal askan wi dëgg-dëgg di nga nit ñi fu ñu dëkk fu ñu fanaan waaye te lu ñu lekk ak lu ñu naan di nga loolu mooy doon loo xam ne mooy li leen gën a yitteel ci seen dund parce que saako bu deful du taxaw may nguur gi foofu la mënewul maanaam la demande social danoo seetaan askan wi ci côté googu balaa maa dee ñu naan defar na ay infrastructure waaye ay infrastructure kan moo cay daw mooy ki lekk ba suur naan ba màndi waaye te ki am paas sax pour xëy mais am na ñoo xam ne pour sax ñu génn dañuy lepp wala ñu ñaan kon ñàkk googu ci réew mi lu wóor la te lu ñuy dund la te lépp nag li ñu ko teg mooy nguur gu yaafuus nguur goo xam ne duñ ay grossiste may ay détaillants lan maanaam ci ay détails rek la ñuy daw mooy dañuy xëy ñu ne nan dem xooli solution info TV lan la Sanjoogu wax lan la Soy bu wax Omar bu Xattaab lan la wax léegi ñuy xool ba ban erreur la bu bun Xattaab def pour ñu woo ko maanaam ñoom jot boobu lan am jot jot boobu maanaam jotu di xool Pam Ndiaye lan la wax ci petit déj. ay jotu Pape Alé lan la wax ci sitam jotu Cheikh Bara Ndiaye lan la wax ci kii ni mu tudd fajum cosaan ñuy xool lan la la mën a taqalee ngir bu la yóbbee ci yoon mën la daan nan lañuy ñuy xoolee benn activiste wala benn booy bu nekk ci Facebook maanaam maanaam nguur gi jotu Facebook lañ am ak ay jotu YouTube maanaam nguur gi loolu mooy seen problème alors que ñoom YouTube ak Facebook yooyu ak médias yi dafa waroon doon benn lantinoor boo xam ne ci la ñuy xool. ngir xam jafe-jafe askan ndaxte bu dee RTS la nga koy seetaanee wala di ko dégg seen i nit parce que Sénégal dañoo am ñun benn culture nit bu jiitee ñàkk a sës dun na ko mukk déet waaw rek lañ koy wax mooy la Xarim Samb musa wax Idrissa Seck xam ne daan na fi ànd ak Idrissa Seck nee na idi wii wii rek lay dégg xanaa noo amul ci tubaab ci parti réew mi tey jii lépp lu Idrissa Seck dund ci àddina lool la parce que privilège ak ay confort bu bari baaxul ci nit confort bu bari da ngay dem ba sori askan wi dem ba sori dëgg te doo ko yëg te loolu moo dal nguur yi